butéel bi dama naan ko butéelu GPS. di wax ne moom CP miin nañ ko. te sa baraan CP bi CP daan yóbbu CP bu ne waaye damaa mm-hmm. moo xam ne dangaa néew kàttan. Mm-hmm. wala sa awra day dellu wala ngay sëy di gaaw a daanu. ndax yàlla defal tawfeex nga jot ma téléphone. Mm-hmm. bu la yàlla dogal bu nga jot ma téléphone na yàlla defal tawfeex sa aajo nar faj ci man. damay faral di wax ne bi bii képp koo xam ne yàlla da nattu hélas maanaam nga nga amoon juróom-ñaar juróom-ñaar fukki at te nga jàpp na nga néew kattan mm-hmm. bu la yàlla dimbalee ba nga naan sama bitel bii da nga jàpp ne ko ko am ñaar fukki ak juróom te damay fa ni yokk waaye yokk awra boo leen koy dégg bu dellu ngay naan ndox wala ngay naan dara loolu di yokk awra bi mm-hmm. ndax awra sidid la damay fa dama ko fal di wax loolu façon nag booy naan ndox day dem ba sidid say feccook mën a tàllit comme garab bu tëw nga di ko roos mi màgg loolu képp la man daal ki may dégg te bëgg ma dimbali ko nañoo lii ndax lii ci alxuraan ayab alxuraan la bu naan wa yasidukum xuwatan ilaa xuwatikum ak inna xuwata lillahi jamian ak yéen yu ma ci ba yoo xam ne jurtuma ko tudd ndax mbirum sekare la waaye yàlla defal li ma la wax boo ko naan finkan naa ne fi ngër sintaan loolu yow la neexee sax mën nga di ma wootee fa nga naan ko gis sintaan ma sool ko pileeram dama koy defal soxnaam woo ko ngir bëgg xamante ma ngir teral ma lii am naa ci lu ne maa ngi sant yàlla moo tax dama ci neexul kenn tamit ndax it lu wér la maa leen nuyu di waaw maa ngi lay fay di sant yàlla rek di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur ñeenti waajur di sant suñu ñeenti waajur ñett yi fañ jëm yàlla jégal di euh, yàlla dàqal yàlla def mu dàqal leen fañ fiñ suñ jóge suñu waajuru góor yu fi des muy maag sama doomu ndey yàlla na ko yàlla may fan wu gudd ak wér te ñu war a dara ci ginnaawam yàlla may ko wér ba mu fekkee njariñu njaboot ci barke Seydina Muhammad di sant sëñ Mouhamadou Mountakha di sant sëñ Modou Abib xalifa Darou Rahman sëñ Cheikh Mbacke daal Rahman yàlla yàlla yokk leeram taas ci barkeem di sant suma doomu ndey bàyyi Bamba ak Rasul xam nga mi ngi màkka moo aaw këram xam nga dañuy wax ne aaw na la jig aaw bu la jigee rek loo yóotu jot ko yàlla defal leen jàmm lépp luñ fa ñaan rek yàlla na ko Seydina Mohamed gis ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sama xarit boobu sama sang boobu sama kilifa googu muy bàyyi Bamba ak ak jimo yi di nuyu aabuuru këram ak soxnaam si ñaari soxnaam yëpp di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm. di nuyu Jaynaba ca Angleterre Jaynaba ca Angleterre di nuyu sama benn jigéen ca Norvège di leen ñaanal jàmm magam ji feebar ca Norvège yàlla na ko yàlla may wér. di wax ni Bamba démb dañu ma doon may soxna nag quoi. di bëgg ah. waaw ci dimanche bi ndax damaa demoon du kii rek ñu may ma ko ma bëgg nga defal ma ci ñaan ci barke Seydina Mohamed ci barke weeru Tabaski ci barke weeru ujaat ji. yàlla bu mu gis dara lu ko naqari ci man yàlla bu ma gis dara lu ma naqari ci moom ci barke Seydina Mohamed ñu jël suñu bopp dénk ko yàlla ndax lépp nag sama frère la sama doomu ndey di nuyu nag monde entier diaspora bi sénégalais ñëpp di leen ñaanal jàmm te ñu ñaanal ma ci sama soxna su bees si ndax nopp naa ko lool nag Bamba waaw. am na solo suñu xaadim euh, soxna su bees si yàlla def jàmm jubóole leen bu baax a baax. Euh, musal leen ci lépp lu nga xamante ni day day yàq tey démb dañu waxtaan ci benn journée ba démb amoon démb arène nationale doxoon ci diggante euh, Jackson ak ki nga xamante ni moo di euh, lagros waaye tamit troisième journée calaf bi ci la amoon final bi Doudou Sane ñoo moo ko war a bëri ak caatu yarax mais bala ñu ñëw ci calaf bi ñu njëkkee ci Lagrose ak Jackson. yoo xam nga Jackson c'est un grand champion. Lagrose c'est un grand champion boo xamante dafa amoon retard ñu bëri bëri wàññi ci xel. te rek Jackson waroon na bàyyi xel tuuti rek ci Lac Rose xam nga fan la ci waroon bàyyi xel ci contre Fils de Balla ni mu ñëwee entendre Fils de Balla yaa ngi dégg ni mu entendre Fils de Balla ba pare aborder combat bi résister résister té té Fils de Balla di nga xam ni kon franchement Lac ngi ñëw ba pare encore beneen couche bi amaat démb rakku Jackson moo daan rakku rakku Lac Rose waaw seetlu nga loolu. xam nga dafa inversé waaw dafa inversé quoi. ba pare nag xam nga ni tey dalay wóor ni tey jii waa Fass suñ bëree Gris 2 am combat ñu bëree ko gagné avec manière ñu amaat combat ñàkk ko mu des leen Lac Rose xam nga ni dalay wóor ni seen lépp lañ ciy def gis nga Lac ni ko booy bi dóor touché yëpp taxul mu daw gis gis nga ko dafa taxaw rek ajaat gardam ànd ak ngorom mais kon am na lu mu téye ci xol bi ndax kee dóoroon na rakkam mu daanu moom tey lu mënti xew day taxaw faayit ak booy bi même bu ko booy bi dee daan da koy daan ci ngor te te te ki nga xamante ni mooy mooy mooy tey mooy mooy ki nga xam ne mooy Jackson bàyyiwul xel ci loolu dafa ñëw rek dóor sëkkatal waa ji rek waa ji xale dañ ko wax ne xale nga kii mag la rek dañ koy sëkkatal te yooyu il faut ñu bàyyi ci xel màggatum bëri nee naa lu màgget màgget màgget su Jackson bàyyi woon diggante Sa Thiès ak Eumeu Sène rek dina jox bu waa ji cër mag bala nga koo xeexloo da ko war yóbbu tuuti à loisir bëraloo alésir bëreloo ko ba muy jàppanteek bàyyanteek kii ba mu kii nga doog koo sëf nag sa sa force yow mais ci commencement bi boo ko bëggee sëf sa force day am lu mu dese gis nga ba léegi boo nee seet sax ñu ngi naan dafa felloo si mais da koo suruxal dafa bàyyi ba muy kër mu suruxal ko arrière rek sa waay tëdd ba jaaxaan non action bi moo ñorul moo lay wan ni jox soon ni ni ni mu abordé combat bi dara baaxu ci dañ ko waroon wax sonalal waa ji ba mu dóoree ba mu tartari daa waroon taxaw jëlawaat paa bu toogaatee ba mu yàgg daw attaqué ko waat énergie bi boobu nga xamante ni tey moom la Ragnos di di di interne ak Jackson bi mu am Jackson moo gën a pire la ndax Jackson moo ëpp lu mu xam nga. Jackson dafa doon yóbbu combat bi à l'usure tuuti. bu doon teg 5 minutes sax ñu àtte ñëwaat sax mu yóbbu ko fa deuxième round bu ñëw nag am li mu bëgg ndax combat déclenchement la moom importance ci moom te bàyyiwu ci xel bàyyiwu ci xel fi ne day retourné waat ndax combat bi bu ko daanoon tey. te li wóor Jackson ku daan Lac Rose. beneen cercle lay ndax bu fàttee ni Lac Rose retard la am mais Lac Rose heure bii bu ñu waxoon te yàlla rek bu loon bu loon kii bi bu loon teg blessure am Lac Rose dañ naan Lac Rose Modou Lo Rose Balla Gaye Lac Rose Ama Baldé Lac Rose Siteu Lac Rose seneen ndax ñooñu ay génération am lañ kon nag tardement boo am mais nag Lac am na ngor ba mi ngi koy xëccaat ndànk-ndànk gis nga ko bu mu jógee ci ci ci ci ci ci coins laa ne gars Reug Reug daanoona ñu naan dafa nangam mais bi leex Reug Reug mi ngi ñëw man leen lu tax ñu ne ma baax man leen baax na mu amaat combat Fils de Balla gars yi naan Fils de Balla dafa bon man leen lu ma leen waxoon ci ba ko coïncidence dama leen mi ngi ñëw de gëmu leen ma tey nag yéen a ngi yéen a ngi koy sippi Fils de Balla bu leen Fils de Balla boo ko laajoon dana leen Reug Reug mi bi ma jàppanteeg moom doole laa fa fekk li mu foogoon fekk ko fa mais démb dama dama seetlu si xaadim bi combat bi tàmbalee Jackson dafa tàmbalee xeex bi xeex bi baax ci moom foofu lu tax eggalewul mu dem seet sa bëre bi. non mënul eggale ndax loolu la bëggoon dóor na ko mu tertari pour moom daf ko war a dóor mu daf ko war dóor mu kaaw. lam defoon rakk ji loolu la bëggoon indi nag. te yàlla nag am na loo xam boo ko bëgg même bu nekkee sa yàlla du ci ànd ñu waxante dëgg bamba yàlla yàlla yàlla du du tëj buntu tëj fenêtre xam nga régloo seetlu nga di communication bi yëpp yàlla baax na yàlla ñu yàlla suturaal rek la koy kal xam nga ba pare di xool booy bi nag di ko réserver ba pare nag heure waxoon naa ko sama interview bi passé ma ak yow naa la jox son heure bu ko Lac xoolee Moussa Ndoye lay gis rak kii Papa Ndoye lay gis rakam ñu bëri bàyyiwuñ ci xel loolu la gis nga Lac Rose loolu la indaale ci combat bi ba bi biñ koy teg ci plateau bi sax rakam mi ngi wax sax mais waxul moom lim objectif bi mu bëggoon am na ko mooy piège booy bi xam nga piège booy bi booy bi dóor na ko mu xaw a tertari mais booy bi yaakaar dafa kaaw te kaawul dafa dafa tertari dóor bee am doole rek mais nekkul coup lay sonal xam nga mais bi mu préparé dafa taxawaat aj loxo yi taxawaat mu wóor la ni kii position garde la jël boobu nag Lac Rose daa waroon taxaw nag delloo si ko waat waaw dafa Jackson dafa waroon taxaw delloo si waat Lac Rose ba mu ñëwaat ci liwaatoo bi nga doog anterne waat xeex bi suy xeex nga daw sàcc ko bu ko defee di nga am li nga bëgg ndax nga am nga fugg mais am na loo xamante ni boo ko bëggee teel a def rek xam nga su boobu da koo yokk loos yu la xaw a féer rek yokk kon di nga xam ne nag Lac Rose ndaanaanu bërikat la ah. technique dëgg la bëree foofu. léegi dafa bëri na expérience parce que bi ko bi Jackson bi ko Jackson euh, dóoree kuy fekkoon dafa day bëree fekkoon dafa dafa mer topp ko ci xeex bi mën na combat bi mën na bi demee nen waaw mooy mooy xale ak mag xam nga dana la force qui élimine la technique force mag ak xale bokkul Lac Rose dafa bëri ci doole Jackson ba daan ko poids bi rek Jackson am ak résistance bi am ca la ko naxa bi équilibré ko tëral ko mu tëdd jàll tàll ñaret mu jóg seetlu nga sax bi mu jógee daa tàllal loxo yi rek manifesté wul ba léegi gis nga phase bi bi bi bi bi gisee coob koo combat bi dafa mel ni ñoom roi lañ jëlaat. bi ñu gañee combat gis nga. kon ñoom am na lu am na loo xamante ni bàyyi woon nañ ci xel. bàyyi woon nañ ci xel adversaire bi ñu doon bëreel adversaire hors pair lañ amoon muy Jackson. daanoon nag mais day mérité wul ndax xale la boo xam ne dafa nekk ci yoonam xam nga mu ngi doog a dégg muñal waaw kon nga xam ni Jackson il a bien préparé mais am na loo xam deewuñu ko. ci combat bi waaw xale bu tolloo fii. bëri combat déclenchement di bëri ku mel ni Ragros te Ragros di nandite dëkk biir town dëkk ECB di nandite dëkk Grand Dakar di doomu Grand Dakar di nandite dëkkul Dakar rek Grand Dakar grand kon di nga xam ne kii grande xel la yor nandite la mooy fi ñoom Bécaye dëkk <laughs> looloo tax Bécaye doon nandite Bécaye bi ngay gis Grand Dakar la dëkk xam nga doomu Grand Dakar yi ay ay nandite lañ ay nandite au pire boo ko dugal Grand Dakar boo tax Bécaye di nandite Modou Mbaye moo tax Bécaye man rek maa ko mën a àjji nandite la grand man rek maa la xam yow yëg nga ni Bécaye daa am fii soxna caari gi Bécaye dafa am takko am na fi takkoo de day bañ bàyyi yëg ko nag mais Bécaye am na fi takkoo piib rek moo wax fan ngay ay fa boo tàggoo làmb ji ñëw fii añee fi ba pare doog a dem làmb ji xam nga moo lay wax ni Jackson tuuti rek man li ma gis ci moom rek mooy manqué naa Jackson daa mel ni Reug Rose da koo liir te liirul ku xool ku xool bëre démb bi bi bi Jackson bëre di nga xam ne dara baaxu ci ndax doo dóor nit ba mu kaaw ba pare xam nga nga daw di ko jëli noonu jëli jël boo xamante ni wóor na kii mi ngi en sang froid am nit da nga koy dóor sax mu xaw a kaaw comme sax comme comme comme combat Ndiaye ak kii xam nga ak caatu yaraa gis nga daf ko dóor mu kaaw mayu ko arrêt loolu la ñuy wax mayu ko arrêt fi Ndiaye Tine Ndiaye Tine demoon na ba jekku sax mais Ndiaye Tine boobu nekku fa demande na ba jekku ko biir action bi demande na ba jekku da ngay xam ne Ndiaye Tine mi bu bàyyiwoon bu liiroon combat bi rek day daanaat booy bi mais bàyyiwu ci xel ndax boobu jaxasoo na ci la ko booy bi kii waat mu dem nit nag boo ko kaawoo noonu nga koy def danga koy fiir mais kii nag dafa dóor rek mu xaw a terter rek mu daw bëgg koo jël ci la ci gis nga raglose bi muy jàpp dara newu fa jàppul dara ndax Jackson ni mu ngemboo pour raglose téye ci ngemb li mu dëgër day jafe moo tax te gis nga Jackson jàpp na te raglose xam nga kon li lay war ni raglose soton daanaanu kul fadrin ci bëre pivoté la def rek xaw fel loos bi rek mbaar ko lii la ñuy wax suruxal li ñuy wax pëtëxal lii mooy pëtëxal mais di wax nag jax euh, euh, euh, nañ waxante dëgg mais booy bi booy Fass bi nañ ko bàyyi xelan way nañ ko bàyyi xelan ndax ku toog ñaata at ay 5 ans nga xool li mage li mage Jackson te booy bi gën a danger ci làmb ji la daan Jackson gisuma ku ko gën a danger Jackson sax tey bu ñëwoon mook Franc du ma bu duggoon ci combat bi ñu ne mook Franc du ko wetti ndax su un grand champion six victoire nga tegale ko te ñim daan ñëpp ay champion hors pair lañ xam nga man bi mu bëri ak Dem laa xam ni c'est un grand champion ndax Ahmed Dem c'est un grand champion xam nga kon nga xam ni ñun nangul nañ ko ak champion kon nag attention damay wax ni te léegi Rose fu mu jëm mën naa ko wax de. waaw. ah Sa Thiès daanoon na ko revanche la oui bien sûr loolu dafa ñor xom franc mii ah, mënu koo bañ. franc Lac Rose. oui bien sûr góor a soog Lac Rose combat la dañoo waxante dëgg buñ fàtte nag lenn nag <laughs> am na lu làmb ji am na loo xam ne bàyyi leen ko xel de di ngeen na Xaadim Njaay ko njëkk a wax du Sané mii bu jógee ci kalaaf bi benn mbër sañatu koo bañ caatu yarax bu jëlee jógee ci kalaaf bi benn mbër sañatu koo bañ. ku ci jël final bi ku ci jël final bi ku ci ku ci ñàkk final bi sax kenn sañatu laa bañ. ndax seen i preuve yu leer nañ def. mais est-ce que ki jël final mooy ëpp sens. mooy ki sens dafa am lu mu wax Doudou Sané ngi commencé feeñ nee ñi dëkk ama seen dañ koy yeb wax jooju ku ko moom <laughs> wax jooju ku ko moom Bamba du Franc ah ñaar ñu ku leen boole te Franc nangu combat boobu mu jóge ci kalaaf bi ñu boole leen tegu ko arène nationale kan moo fay xaj Doudou Sané Franc tey ñoo war a bëre. di nga gis bëri di nga xay <laughs> kay yu produit yu neex yi lañ xamul xam nga tey caatu yaraax mii tey di tey jii bu ci jógee ah nga ni caatu yaraax nga ni caatu yaraax tey tey nga ni caatu final waaw nga ni caatu yaraax Lac lu ko dax lu ko dax te li may xalaat nii promoteurs yi ñu ngi koy xalaat ku ci mel ni ñoom Baye Ndiaye ñoom Aziz ñu ngi xalaat li may wax kon nga xam ni làmb ji mi ngi ubbeeku gis nga booy yi ma gis booy ndaw yi ay caatu yaraax bàyyil xel ci loolu ah ay caatu yaraax caafu ñi nekk ci kalaaf bi rek ah, c'est que gàmmu guy rek li ko dal ci kalaaf bi mën na dal mbur mbur ah. baisse de forme la duggee ci kalaaf bi xam nga mbër bu fekkee da nga nekk ci gox te jàppale wuñ la amoo yenn jàppale yi te ku xool gàmmu guy fi mu jógee da ngay xam ni kii c'est un grand champion xam nga mais jàppale ba ci war dëgg-dëgg da ngay di xale il faut nga am lu fu boo gis nga li ñuy wax boo wéeruwul da ngay yomb ba wax loolu moo dal gàmm gàmm guy gàmm guy da ngay xool regardam sax nga xam ne kii manqué leen ay jàppale ci combat am mais c'est un grand champion gars yi mënuñu ko de dañ ko ëpp sens rek waaw te gars dañoo compétir moom compétir des na loolu rek ko kii mais du yaa fuusam du ñàkk faydaam gëree la doomu lébu bu buy delloo avance amul mais gàmm guy gëree la xam nga moo tax nag làmb jàng ubbeeku bamba nañu waxante dëgg rek bu ñu soxor pépinière bii di jóg mag mu ci ñàkk fayda booy nelawal la ndax booy léegi kafatuñu reewatuñ dama ne mbër mu ci ba wàññi sa bëgg-bëgg xam li nga bëgg barke Rasulullah di nga téye làmb ci te Doudou Sané mii dañ ko bàyyiwul xel mais ba mu daanee garga rek waxuma ñeneen ñi de dama ko jëlale ba mu daanee garga jàpp ko daanu ko ci bëri dóor mu daanu te Doudou ñëpp bëri lañ ko xamee di nga xam ni xale bii boo soxor di nga xam ni Doudou Sané mii wax dëgg yàlla c'est le meilleur c'est un grand champion gis nga ñi muy bëri ñëpp moo lay dirigé day aji carte bi rek taxaw jonroon uti la léegi moo moo Caatu euh, Yaraax ñoo war a bëre final bi le 28 juillet su ma juumul mooy jour journée ñaabu ndaw ak euh, amaneex loo gis si combat boobu Doudou Sané ak euh, kii Caatu Yaraax. ci stratégie ci stratégie ñu bëri sax dañ naan Doudou Sané mooy favori mais Caatu Yaraax ni muy liire combat ak ni muy aborder combat mën na daan ponkal mu ne. Caatu Yaraax seetlu nga mbër bu ci nekk bi mu bëreeg yow bëgguma di feeñal secret mais mbër bu ci nekk ni mu bëreeg yow bokkul ak ni mu sa morom. gis nga ni mu bëree que caatu euh, yoof da ko yóbbu ci làng gi non xam nga il faut que damay analyser nañ ma baal mais ku wax rek da ngay feeñ da ko yóbbu ci làng gi boobu yaakaar da koy raw ma ne sama gaa yi fii daw de bu ko boobu jël làmb ji jeex ndax boobu xam naa booy bi quoi xool gis nga da koo jël rek mu daw <laughs> xam nga gis nga bi mu bëree rakku tafaatin bi njaaytin gis nga ni mu bëree moom dafa dafa liwaatoo moom lu yàgg ñëpp naan kii nangam. Ndiaye Tine jox ko cër c'est trop mu xam ne kii cër bi jox na ko cër kii du yàgg ba mu ñëw def na ni rek door ko gauche. waaw est-ce que Ndiaye Tine jàpp sóor sóoraale wutoon trop euh, euh, song bi. so Ndiaye Tine xam nga xam nga Ndiaye li ñu ko wax kii bu la boo koy jël da la remplacer te am na nit bu fekkee de da koy jël mu plaqué la mën mën nga ci mën nga ko song te du la plaqué xam nga plaqué bi fii la xoola soo koy jël na bopp bi gën a suur da ngay bàyyi xool koy xoolaale boo koy jël da ngay xoolaale loxo bi booy jël rek bu loxo bee ñëw ko rek daw jël. mi ngi mel ni ngeen di bëri yàgg nit ki mu teg tànk bi nga teg tànk gauche mu teg tànk droite ngeen def nii boo ko bëggee song xam nga doo ko mën a song fële loos yi loos bi day xaw dem nii rek nga jël tànk tànk baa fay des nga ni tànk bi coppat man ñu bëri noonu laa leen doon daane mbappat wala ma ñoox la sama tànk nga doon koy jël ma remplacer la sama tànk maa njëkk yaay yaay yaay njëkk a song mais maa mujjee jàpp te bu muy jóg muy sa tànk di jóg damay jóg rek xalab la lamb stratégie la. yaa mu ak kii nag ama neex. ah. Amaneex xam nga dafa nekk ci yoon neex li daal Lac moo ko dal dafa gëjoon a bëri moom it pas malade mais dafa gëjoon a bëri mais ku daan bo booy bi fi të muy jéen kere sooy bëri bébé jéen ku daan bébé jéen suñ la booleeg ñaabu ndaw say mbokk duñu tiit ndax bébé jéen c'est un grand champion ah, da ngaa da ngaa bëggee jën ci kii jën kayre est-ce que jën kayre Lac Rose boobu du bëri. Ah, non duñ bëri non non ah, waaw ñoo bokk Medina quoi duñ bëri ndax am na combat yoo xamante ni loolu nag moo gën a yàq làmb ci kii dëkk fii kii dëkk fii te bokkuñu benn écurie dañoo war di daje nañ waxante dëgg làmb ci gën a neex ndax tey jéen li mu mënoon a ci Reug Reug am ko ci moom mën naa jënd kër kon làmb ji il faut que ñuy daje ji bëri quoi ay kii bokk fii kii bu fekkee ni ñaar ñu bokk écurie man d'accord naa lu ñu bëri waaye kii nekk écurie bi kii nekk écurie bi dañoo war a daje xam nga ndax du yàgg yàgg mukk ba nga ba ba ba Lac am combat jéen di ko contacter du yàgg ba jéen am combat Lac Rose di ko contacter kon nag waaw dañu waxante dëgg kon nag dañoo war a daje ba mu sap sap loolu mooy yàq làmb ji waaw mais nag amaa neex dañ ko bàyyi xel c'est un grand champion ku bëreeg ay Boy Niang ay ay ay kan fi mag yëpp Ama Baldé ñoo ñëpp bëre naa ak ñoom xam nga làmb waxul dëgg rek tey nag mu ngi mu ngi mu ngi yokkaat cere relancé woon na ci bébé jéen ñu ngi ko joxaat benn xale boo xamante ni géejuwaay la dëkk te moom it juum na ci compte Zarko te juum ñaari yoon kenn amul droit def ko moo tax combat boobu tamit am na lu ñu ciy xaar combat bu neex nga boo xamante ni neexatu pronostic soo xamul nag da nga naan ragrose mooy favori ndax moo jiit ci làmb moo ëpp expérience mais xale yi dañoo am doole te grand contre boo dee seet mu ngi bëgg a jeex de léegi nag grand yaa ngi xaw a am chance ci booy grand ya xoola boo dee seet ragrose li Jackson Jackson saxaar mënu koo daw. kee boo dee seet moroomu rakkam la te xool ni mu ko daane da koo daan ba mu tàlli ñeret kon di nga xam ni ki am na doole hygiène de vie la rek ak question de entraînement ak. gëm sa loo koy wax mu recti mu boo doon rectifier ci stratégie ni muy bëree ak nu muy eh, aborder combat la loo koy wax mu rectifier ko. démb lim nekk ci lim fournir ci làmb ji avant combat bi dafa bëri lim fournir démb avant làmb ji dafa bëri. mooy bàkku beeg bàkku beeg euh, échauffement yeeg yooyu yëpp dafa bëri nga. te fekk ci ragrose ragrose dafa sakkanal énergie am moom ndax xam ni combat bi combat bay passé contre contre bébé Balla dafa fils de Balla yàgg mu xam ni bii tamit mën na koo dal xam nga moom dafa yaakaar ni boobu da koy bëriloo quelque moo tax bi arbitre fër mu taxaw moom it taxaw lewaatoo pour xam ni boobu da koy bëriloo tuuti temps moom loolu la jàpp far yàlla boobu arbitre fër rek boobu dal ci kawam combat yu gaaw lay bëri xam nga est-ce que des fois day yàkkamti ay yu gaaw yi xam nga dañ ne mbër mu lay ëpp lu muy song ah mën naa daanu de mais moo ëpp ay victoire mais mbër mu ëpp lu muy attaqué mën naa jël coup perdu bu ko yàqal làmbam dañu waxante dëgg waaw. sëñ Khady merci. bàmba di sant ñëpp di nuyu Baye Bamba ak Rasoul yàlla defal leen jàmm fa ñu dem yàlla defal leen ko di nuyu sama soxna su bees si yàlla yàlla takk ko sëy ba ci aras di nuyu imam bi nga xamante ni moo ko ñaanoon ak ay waajuram ak ña fa demoon ñëpp sama xarit yi. yàlla defal ñu jàmm di nuyu aw buuru këram ca màkk yàlla defal ñu jàmm. merci.